Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la tasaare leen ko. asalaamualeykum cher internet ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen seen YouTube bu Reubeuss TV di amaat bu baax a baax di àndaat ak yéen fii ci seen émission toj-toj seen émission toj-toj nag demaloon na leen fële ca Ziguinchor bu ñu jógee Ziguinchor jaar nañu fële ca Touba. bu ñu jógee Touba euh, jaar nañu mbuur bu ñu jógee Mbour tam euh, ñëwaat nañu fii ci Ndakaaru euh, ci fu ñuy wax yëmbal ak Caaroy fële ca Ziguinchor nag lu doy waar xew na fa mu nekk benn xale bu góor boo xamante ne nii daf doon wéranteeg magam bu góor ci loo xamante ne nii lu ñuy wax kanet ba ci la jamee mag bu góor bi ba mu génn àdduna moom nag dafa daw bi mu defee njombe loolu daw dugg ci mbóoy bi ba tax na police moo ngi koy wër instant yi nii. ba léegi ñu des ak yéen si di coor rek euh, seen as ngóor soo xamante ne nii ay atam moo ngi toll si juróom benn fukki at moom la benn sëfëru moto jakarta jaar ci kawam ba mu génn àdduna euh, bu ñu jógee si di coor nag euh, dañuy jàll ak yéen ba fële ca tuubaa Touba tamit lu metti moo fa xew koo xamante ne nii ci prison bi la nekkoon dafa mujjee ñàkk bakkanam ci benn malaise bu mu def ay atam nag moo ngi toll woon ci juróom benn fukki at moom nag euh, ci li ñu jot a dégg mooy li nga xam ne moo ko yóbbu woon foofu noonu ci prison bi mooy magam bu góor boo xamante ne ni ñoo bokk ndey ak baay ay atam toll si juróom-ñaar fukk ak ñaar te ñu jàppoon ne moom moo ko rey ba mu génn àdduna bu ñu jógee Touba tam dañuy euh, jaar fële ca mbuur balaa ñuy dellu si ci Ndakaaru mbuur nag lu doy waar xew na fa muy ñi nga xamante ne ni respecté wuñu couvre bi. boo tax na police teg na loxo ci ñoom lu toll si juróom ci ay nit ci commune bu Mbour ak commune bu Saly euh, bu ñu jógee Mbour nag euh, dañuy dellu siwaat waat ak yéen fii ci Ndakaaru Ndakaaru nag euh, fële ca yëmbal benn jaaykatu légume boo xamante ne nii ay atam mu ngi toll si juróom fukki at ak juróom-ñett moo def benn crise cardiaque ci car rapide bi ba ci la ñàkkee bakkenam bu ñu jógee foofu tamit ñu jàll ci caaroy rek caaroy tamit mën nañ ne. benn euh, chauffeur minibus moo jaar ci benn xale bu mu ñàkk bakkanam ci sansé xale bi ay atam mu ngi tollu woon ci ñetti at ñu ñaanal leen yàlla rek ñoom ñi nga xamante ni ñoo génn àdduna yépp yàlla yërëm leen te xaar leen aljana buñ jógee foofu tam euh, déggoon nañu fi coowal phobie yi temps yi ñu génn euh, ba Farba Senghor nag jotoon nañu ko ci taqal ba ki nga xamante ni moy colonel bi nee na xamle na ne kep ko xamante ni way politique la laalewul ci mbir mu ni mel motax na ki ñuy wax farba senghor mom bind na plainte jëmele ko ci ñi nga xamante ñoy wa ne nañu deram bu ñu deram ci wax ju jaaw ko boole dina len uh, yobbu ci tribunal fi mbaxane doonee ben kon mbokk yi tay uh, li lañ leen andiloon ci information yu jëm ci seen émission toj toj fii ci seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV la chaîne de la vérité di leen jox dig daje bu ëllëg incha allah. Reubeuss TV mooy suñu tele la chaîne de la vérité. tasaare leen